الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين mbokk yi ñu ngi sant sunu boroom nu ngi koy bàkk di ko kañ di julli salmal ci ab yonente Muhammad salawaatu rabbi wa salaamuhu alayhi noo ngi ñaan sunu boroom mu dëkkee dotti waamam xéwal ci kaw yonente boobu ak saxaabaam ridwanullahi alayhim ajmain mbokk yi nu ànd xam ni sunu boroom subhaanahu wa taala moom moo ñu boole moom moo am ay sañ-sañ ci ñun moo bëgg ñu gindeeku te loola it lay doon jëm si ci ñun tax muy yebal ay yonent yu bari lool seen lim takk ci mboolem xeet yi nga xam ne ñoo fi mas a jaar ba xeet wi ci mujj muy sunu xeet wi di xeetu lislaam wi sunu boroom yebal ci ñun ab yonent bu ñuy tuddee Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Muhammad moomu dafa jaadu mbokk yi ñu xam ko dëgg-dëgg xam ndax xam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy rek comme niñ koy faral di déggee Amina mooy baayam mooy yaayam euh, Abdallah mooy baayam ab jirim la woon déedéet loolu dafa tuut lool ci xam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax xam yonent bi mooy ñu nekk ci suñu yittey bopp ba at mi jeex ñu tànn benn bis rek. jagleel ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kaca tane sax mooy kaca fanaane wax ba fajar jot te boo seetloo li ci ëpp yëpp léegi te leneen la ñuy wax lu dul te yonent bi kon àq dañ ko jox tuut na lool buñ fàttalikoo ci xutba yi weesu amoon nañu xutba bi anwaan hal addayna xaq almahabati fi rasulillah ak hal addayna xaq almahabati fi ashaabi rasulillah ma ndax ñun ñi woote woo lislaam ak bëgg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam est ce que dëgg dëgg jox nañ yonente bi sallallahu alayhi wa sallam gëdd bi mu am ci ñun loolu laaj la bu ku ne war a laaj boppam waaye ca geneen wàll ga ndax dëgg dëgg saxaaba yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jox nañ leen gëdd ba leen war a jox loolu nag maa ngi jàpp ni lii waroon na ko mën a jiit ndax nit ki balaa moo jox gëdd ka muy jox gëdd day fekk mu xam ko tey boo seetloo lii ñuy koyee yonent bi sallallahu alayhi wa ci àddina bi ba tax kenn ku jóg rek am da fowukaay rek yëkkati ay kàddu yu ñaaw teg ko ci alquran wala nga yëg ay kàddu yëkkati ay kàddu yu ñaaw teg ko ci kaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dara waral lu ko lu dul mbir yi may bëgg a tudd ndax xam ngeen ni am na yeneen yonent yu fi nekk na Isa mi ngi fi te ba léegi duñ dégg jullit ñi di yëkkati ay kàddu yu ñaaw di jëme ca moom Moussa mi ngi fi te ba léegi du ñu yëkkati ay kàddu yu ñaaw di ko jëme ci moom yeneen yonent ñi ngi fi te ña nga xamante ni ñoom ñooy def kàddu yu ñaaw yooyu di ko jëme ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ne duñ ko def ci Souleymane te amaan na sax gëmuñu Souleymane moo ko def ci Aïssa te amaan na sax duñu ay chrétien waaw kon lu tax yu ñaaw yi bu ñu ko yëkkatee rek daal di koy tax ci kenn ci yonent yi mu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loola laaj la boo xam ne kenn ku nekk bu ko laajoon jàpp naa li muy bëgg indi ci tontu da nga kon tontoom la ba ci jëkk mooy jullit ñi ci seen jëmmi bopp njàngale yéen waroon a jàngale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba ñu xam ko dëgg dëgg xam dégg na ko ndax yonent bi sallallahu wa sallam toog ci rek wax ci ay waxam Abdoulaye baayam Amina yaayam jërim la woon Màkka la gàddaaye dem na Madina fa la faatoo xare na ñaar fukki xare nangam dugg na fee génn na fa loola dafa tuut lool ci xam yonent bi sallallahu alayhi wa ñaar ñaareel bi ñàkk xam googu dafa juraat mu sabab ci bëgg gi ko jullit ñi waroon da bëgg bay sacrifier seen i bakkan ngir moom loola du mën a am ndax xamuñu ko ndax yonent bi newoon na du ngeen gëm lu dul maale leen gënal seen baay ak seen yaay ak seen jëmmi bopp yi ak nit ñi yëpp fii nit ki yeggut foofu boo natee sa bopp gis ni yonent bi la sa bopp say doom sa jabar sa baay sa yaay sa alal lépp yonent bi la gënal bu yeggee foofa kat jàppal ni sa ngëm moom mat na waaye saa boo nattee yëg ni kat am na diit diital ah su boobaa xoolaatal sa bopp moo tax ba Omar ne ah man de yéen li ma yëg sax mooy yaa ma gënal ñëpp waaye nag saa ba kanam bopp moom jàpp naa ne fi ni ma ko fonkee xam naa ne faaw ma xoolaat ah yant bi ne ko mbir mi des na de dëgg la loolu du woon ak sikk sàkk ci Omar dafa wax dëgg dafa ànd ak sincère ci wax lam gëm te noonu la jullit ji mel ndax Omar ku dëgg woon la ba ko yonent bi ne déet Omar xoolaat xool daal ni ah man daal xam naa ne fi ne seytaane mi bëgg a fooyee rek waaye gëm naa ni yaa ma gënal a sama bakkan bii mu ne ko ah bismillah mbir mi mi ngi doog a mat kon noppi yi jaadu na kon ñu xam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam su boobaa kat jàpp naa ni àdduna war ngal kat wallahi kenn dootul ñemee ci yëkkati ay kàddu yu ñaaw di ko teg ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam saa saa nga dégg kàddu gu bon da ngay dégg ñu ne seen yonente bi ku bëgg jigéen la ndax li mu takk ci ay soxna dëgg la kàddu gi ñaaw na waaye ñooñu dañoo xamul histoire ndax bu ñu xamul histoire danañ xam ni seen ak yonent muy Souleymane amoon na junniy jabar te loolu lu wér la amul sikk sàkka kon loolu nit ki da ko wax di ci ñaawaale kenn waaye da cay doyalal boppam nag ren de xamul dara ndax ñay wax loola di juif yi Souleymane te seeni yonent la bokk te Souleymane amoon na junniy jabar bokk na te yéen ñuy tuumaale suñuy yonent mooy ndey Aysa soxnaam dafa njaaloo woon. te jàpp naa ni loola tuuma joo xam ne ña koy wax jaay chrétien dañoo xalaatut moo tax benn borom xam-xam ba borom waaj a dikkee ni ko yéen kat seen jabari yonent dafa njaaloo kon seen tu baaxut ndax bu baaxoon yàlla du ko seetaan ba jabaram di njaaloo mu tontu ko tontu bu mat bu matale ni ko waaw jigéen jiñ tuumaal njaaloo mu andi doom ak jigéen jiñ tuumaalul njaaloo ak jigéen jiñ tuumaal njaaloo andiwut doom ñoom ñaar ku gën a xet xam ngeen soxna Mariama dañ ko tuumaaloon njaaloo ci ay taas waaye moom andi na doom Aïcha dañ ko tuumaal njaalo waaye andi wut doom mu ne waaw ñaar ñiy tuumaal njaalo kii andi doom kii andi wut doom ku gën a neex a setal waa ji noppi laa sakka ni kenn di wut doom a gën a neex a setal ànd ak ñoom ñaar ñëpp bokk set ànd ak loolu kon mbokk yi jullit ñi ñu xam ni yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci boppam léeg-léeg nit defar ay caricature defar ak ganaar ak téq gu mag wala ginaar gu jigéen defar ay cóoj yu ndaw wane ni jëq ginaar gu mag moom mooy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñu topp ci gannaawam ñooy aw ak yeneen yoo xam ni yu bon yoo xam ni wax dëgg yàlla bu dul ko woon ak ci buñ ko leeral tudd ko rek dafa ëpp loolu lépp li ma jàpp mooy dañoo xam ku yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waaye ñu xamoon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci ci jamono yu mel nii daawul xam bariwaana moo koy jàngee ci histoire ku saaga yonente bi sallallahu aw saaga rek benn saaga kooku addinam day yàqu yaxeet xam ngeen ne ibn al ba mu saagaa yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yonente bi yëg ko da ne uqtuluuhu walaw wajadtumuuhu taxta asfaaril kaaba xam ngeen kaaba ga wa man daxalahu kaana amina wax dëgg yàlla koy dàq sax ba mu dugg ca biir kaaba ga war naan kaaba ga war naa tax nga ba ko waaye yonente bi mer ca lam ko doon wax mu ne même bu ngeen ko fekkee mu ngan ko sagari kaaba ga dëkkee ci ba mu dëgg rey leen fab lañ ko rey ndax dafa jàppoon ne foofa rawukaay la ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daana julli gee ba noppi mu ne ah diw sàngam ci dëkk sàngam de mi ngi wax ci man lu bon di wax ci lislaam ne nangam kan moo ñu mën a fegal aw loram benn saxaaba jóg ne ko ñaanal ma yàlla ma fegal law loram mu ñaanal ko waa ji dem bu fajar jotee buy julli si ak layu layu lay jël teg ci bopp waa ji maanaam du ko rey rek yem ca waaye da koy rey dagg bopp ba teg ci kaw layu bi bu ñu sëlmalee fajar mu indi layu bi ni ko bopp diw mi ngi nii bu ko defee loola la ñuy wane mooy ñooñu xamoon nañ yonent sa sallam bëggoon nañ ko waaye dañ doon sacrifier seen i bakkan ngir moom ndax jar na ko parce que loolu la ñu suñu borom sant ci téeréem bu tedd bi kon jaadu na mbokk yi mu taxawaat ak taxaw seetlu ci siira yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doonte wax siiraam dana jafe lool ndax doo xam ci looy tàmbalee ndax boo tàmbalee sa tàmbali kaay ba ah balaa ngaa sori sax la nga am te waxtu lépp day jeex waaye bu ñu bëggoon a xam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak martaba ji ma am fa suñu borom ak bët biñ ko war a xoolee da ngay gis ni kat yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kéemtaanu sunu borom la woon ci biir yonente yi ndax sunu borom dafa tànn ay yonente yu bari tànn ñaar fukk ak juróom ci seen biir tànnaat juróom yi ñuy wax ulul azmi ci seen biir tànnaat yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci seen biir fa huwa afdalul anbiyai ala al ijma loolu moom dëppoo nañ ci yonente yëpp Adam di bàyyam faman duunahu àllaaxira ci ron keppaar ga ko sunu borom di defal ca la ñuy lekk moo tax mu ne ana xayru waladi aadam wala faxr li aadama jur man yonente bi maa ci gën tiitar taxut ba di ko wax waaye dama koy santee suñu borom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam boo seetloo ay jikkoom ay waxam ay jëfam benn bu ci nekk rek moo fi kéemtaan da cay feeñ boo xam ne dafay nooyal xol di tax mu gën a bëgg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam boo wi ci boppam bu ñu nekkee ay góore te lépp bokk ci kéemaan yi ko yàlla defal ndax ci ay jeexintalam la moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam boo seetloo seen diine ji ni mu féetee kaw diine yëpp te ca moom la bàyyi koo lam lay woon mooy kooku kat du ko ndaw boo seetloo xeet wi li mu am ci ay niti yàlla ni mu baree ñoo xam ne suñu borom daf leen a fonk lool te ñooñu ñëpp ay taalibeem lañ sallallahu alayhi wa sallam loolu la muy wane mooy kan baluloo ca moom ku màgg boo seetloo siiraam keroog bi mu juddoo ba bi mu faatoo ak bi mu faatoo wala biñ ko bi mu juddoo biñ ko yónnee biñ ko yónnee bi mu faatoo da ngay gis ni lépp am njàng la foo ci mën a toll rek ci wàllu jikko am njàng la ci jëflante am njàng la ci melokaan am njàng la lépp dafa nekk njàng ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ndax kat xam ngeen ni baa kaw suuf yëpp yonente bi moo ci gën sallallahu alayhi wa sallam ci njabootu Ibrahima la bokk suñu borom nag defaloon na Ibrahima ñaari doom muy Ismail ak Ishaq ba suñu de defee Ismaayil mu dig yonent dafa bégal Ibrahima ni ko kat sa doom jii di Ismaayil kat dinaa def ak ay yonent ak yonent ci ci bu ngalloo ci moom yonent boo xam ni day ñëw di sellal xeet wi di leen baaxal wa yuallimuhum alkitaaba wal xikma wa in kaanu min qablu la fi dalalin mubin boo demee ca Tawraat firlisi dinañ ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te ñëwagul boo demee ca Injil ak téere yooyu yëpp benn bu ca nekk da nga cay wax kan mooy yonente bi sallallahu wasallam ba jamono yonente bi sallallahu alayhi wasallam balaa yonente bi saxaaba a di dund ak moom di ko miin jiit yi ñoo gënoon a xam sax jullit ñi koy yonente bi lu ko waral mooy dañ koo jàngoon ci seeni téere ba xam ko moo tax bu xaymaa keroog dañ ne jàpp yonente bi sallallahu alayhi wasallam ne Abu Talib kii sa la mu ne ko sama doom la ko déedéet du sa doom Abu Talib mu ko yow xanaa da ngay laaj wala lay def kii sama mu yéeg kaw jëm suuf dëgg la doomam la waaye nag xamul woon lu mu ci namb mu ne ko kii talan la mu ne ko sama doom la mu ne ko mani du sa doom mu ne ko fan nga sukkandiku ba xam sama doom mu ne mandarga yi ma gis ci waa ji mooy wane ni talan jàngoon kii mooy mujjantalu yonant te mujjantalu yonant boobu bàyyam du dund te la Abu Talib dooga ni xëy ci la ni ko ah wax nga dëgg kay bàyyam dafa faatu ah man nii kat man bàyyam bu ndaw laa maa ko yore nii maanaam Abu Talib rakki baayam la moo ko yore te la ko boo xaymaa ni ko dëppal ak moom gaaw ndax yahud yi ñu añaan lañ te buñ ko gisee danañ ko jéem a faagaagal waaye loolu waxam la rek waaye mënta nekk ndax sunu borom moo koy aar wallahu yaasimuka min annaas sunu ko ci xeet wi nga xam ni xeetu arab la waaye te biir ya giir bu ñuy wax giiru Qurayshin te xam ngeen ni giiru Qurayshin moo gën ci giiri arab yi la saa sallam yàlla tànn ko ca biir giiru Qurayshin mu ñëw nekk ku set wecc jóge ci giir bu set wecc comme ni mu ko waxee ci xadis maanaam caaxaani caaxaan yu njëkk yi nga xam ne jigéen da daan ànd ak góor ci lu dul tey mu yonente bi nee na ku topp saaw askan ba ca sama maam Ibrahima mosu caa am nee na maa xarajtu min sifaax góor boo xam ne daa ndax nit kat naa baax lool waaye boo toppee ay maamam rek am na fu yëf yi mos a jengee waaye yonent bi nee na bu ñu toppee ak kanam ba ci aadama amul fenn koo xam ne benn maamam mas naa ànd ko jigéen te fekk ànd du ànd bu jaar ci lool loolu lépp dafa fekk fàtt ko suñu borom doon fàttal yoon wi la pour mu yegg si dëkk bi gën ci dëkk yi muy màkka nga xam ne fii awalu baytin wudaa linnaas moom la suñu borom tànn mu nekk ab dëkkam ndax fa la juddoo waaye dëkk ba ca topp topp ca muy madina xamante ni fa nekkoon waaye yonent bi alayhi salaatu wasalaam boo demee ci tawraat ak injil noonu la dëppoog alquran ci seede guñ koy seedeel musul di dañ ñi nekk ku dëgg di nekk ku baax di ku rafet ay jikko di ku maandu lool ndax yéen a ngi fàttaliku keroog ba kaaba ga fàqee ba gars yi di ko defar ba ñu amee coow ci kan mooy yëkkati wat xajarul aswad ba ay jaasi jóg te booba sax yàlla yónneeku ko sallallahu alayhi wa sallam waaye xoolal maandu tegi rek kan moo yëkkati xeer wi xeet wu nekk di xëccoog morom ma yonente bi ni kaay leen ma wan leen ñu ñëw bu doon ci misaal pour mu gën a leer bu doon ay famille la Jóob am ca Njaay am ca leneen am ca leneen am ca yonente bi salaa salaam mu ni yéen famille diw kan moo leen représenté ñu ni diw mu ni kaay famille diw ku leen représenté ñu ni diw mu ni kaay ba famille jeex mu yëkkati xeer wi teg ko ci kaw kaalaam kenn ku ca nekk ci représenté ak famille mu ne la jàppal ci teg ñoom ñett ñëpp ñu jàpp ñoom mbooloo yi ñu jàpp ci cat yëkkati ko ba fa xeer wa war a tegee yonent bi yëkkati ko ci loxol boppam teg ko ni aywa yéen ñëpp ko yëkkati loolu xam ngeen ni ñor ma nga ca yeewu ma nga ca waaye maandu ma nga ca bu ko defee xeet wu xeet wu nekk rek bëggoon na yëkkati xeer bi ndax buñ ko toppee ci histoire kaaba ga maa ko tegal faraatam loolu dañ koy wala xeeru xajaru aswad maa ko tegoon palaasam loolu dañ koy ndamoo waaye bu ko defee say xeet yëpp ñoom ñoo koy bokk di ko ndamoo te loolu ci ñor gala bokk ak la nga xamante ni mooy maante ga sallallahu alayhi wa sallam wala ajabu kullu la ajab mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam laa fi qabla laa qabla nubuwa wala baada nubuwa benn wax boo xam ni wax ba amul mëtee su koo xam ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu jàpp naa ne mbokk yi lu jafe la keroog ba Abu Sufyaan euh, najaatee ni ko waaw sa jalab bu gudd ba ndax mas ngeen a xamal yonent sa salaam mu wax lu amut Abu Sufyaan nee na diit diital naa waaye nag comme damaa xam ne góor du fen moo tax nanguwumaa fen te booba yéefar la waaye mu ni déedéet yonent bi de musuñu koo xamal mu wax benn wax bu amut maa xam ngeen ni yee ko bañoon da ko contre keroog ba mu gàddaayee la tax mu bàyyi fa Ali ibn Abi Talib lalam ba mooy ngir mu delloo ndénkaane ya nga xam ni noonu yi ko bëgg a rey tey ñoo ko ko dénk xool a seen i ndénkaan ci dëkk bi amul ku ngeen ci wóolu ku dul yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waaye nag wa jahadu biha wa stayqanatha anfusuhum zulman wa uluwa léeg-léeg nit dana bañ bañu biti waaye boo fukkee xolam rek da ngay xam ni nangu na da koo feeñalut ndax añaan waaye borom bi subhanahu wa taala def na loola du ko wàññi dara sallallahu alayhi wa sallam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam fayantoo bu ñaaw kenn mësu koo xam ci moom déedéet fayantoo lu ñaaw bu fekkee jullit ñi tey dañuy yonente bi la ñuy di fayantoo yaa ma gën a bon maa la gën a nangam te nit ñi dañoo amul seetlu bu ñu def mooy gis na ki ne la da ngaa xamadi nga ne ko yaa ma gën a xamadi yow mi ne ko yaa ma gën a xamadi tooñ nga da ngaa tooñ yaram ndax jàpp nañ ne bu ne da ngaa xamadi nga ne ko yaa gën a xamadi fayu naa mu jeex fekk déedéet moo tax wolof yi dañuy wax wax ju am solo dañuy wax ne booy xuloo baa ngay xeex da ngay xuloo xuloob naar xuloob naar mooy boo ne ko yaa nangam mu ne ak yow xam nga ak yow ca la yem te alquran dani ah wa in aaqabtum fa aaqibu bi misli ma uqibtum bi ku la def lu la metti wala mu tooñ la wala mu dóor la suñu borom ni booy fayu fayul lu tol ni lam la def wala in sabartum boo muñee nag la huwa xayrun lissabirin kon tey bu lee nit ki ne da ngaa nangam nga ne ko yaa ma gën a nangam kon yow mi mujjee wax yaa tooñ yow parce que yaa ma gën a nga ko wax yaa ma gën a kon yaa ko ko gën a baat boobu ko yokkul muy yaa ma gën a nangam ji ak tooñ la kon daa daanaka dafa mel ni ak yow joojee nga xamante ni moom leen ñu jàpp ne ku tàppet moo koy tontoo loolu moo di maandu su mënta ñàkk nit ci kan yonente bi sallallahu alayhi wa sallam loolu daaw ko ci fekk déedéet daawul fayantoo benn kàddu bu ñaaw xamee suuf ci sira bu mos a génn ci gémmiñu yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam du ca la jiitu nu ginnaaw tamit bi ko yàlla yónnee yonente bi sallallahu alayhi wa sallam xam nañ ko ci amul kenn ku mën a taxaw ci kaw suuf ni maa ko jàngal loolu amul benn daara benn école bu mu génnee loolu amul benn professeur bu ko jàngal bu dul jibril bàyyi ko suñu borom amul waaw kon kooku bu dikkee ab dënnam fàcc wala xol ab bopp xolam fàcc ba la ci génn ci ay njariñ tey xutabaa yeeg aimatul masajid yeeg ulama yeeg saalixuun yeeg dañuy wax ba faatu te li ñuy waxal yéen safaan loolu lépp la ko waral mooy kon borom ko waajal ba mel ni mel sallallahu alayhi yi ñëpp ñu topp mooy ñi naan topp yonent yi alayhi salaatu salaam mooy nga xam ne amul dara te yonent yi noonu lañ ma tamel ñu di leen lor ñuy muñ mbokk yi xool leen koo xam dafa ñëw di woote ni yàlla moo ay poste yoo xam ni ñu ko topp après moom la leen di falee yorul alal joo xam ni bu ko topp mu dimbali ca yorul doole wala mënti loi bi loo xam ni kuñ xor ñi ñoom mu dimbali ko. bal yonente bi danaan romb ay nit ñu leen fitna du ca man dara mu naan leen sabran ala yaasir fa inna maw'idakum aljanna dara la jëdut man dara dana la fekk ñu yeew la ba nga ni woon yaasir ah muy muy papay Ammaar ak Ammaar ak soxna di Sumayya ñoom ñett nit ñu putti leen yeew leen te xoolal lu gën a metti loolu putti leen muy jëkkër ak jabar ak doom bañ ne dumm dummaa rek ñu di leen teg ci ay yari mbugal yonente bi romb leen sallallahu alayhi wa sallam naan leen muñ leen te ngeen xam ni sama rendez-vous bi yéen mooy tàbbi àjjana waaw ñooñu ndax dañoo yaakaar bu fitna ya jàllee yonent bi fan leen benn poste déedéet ndax yonent bi amu ko ba di ko def ndax dañoo yaakaar ni bu leen dee fitnaan ñu dimbal mu yonent bi dimbal leen déedéet ndax mi ngi noonu romb na leen te mënu ko dara ndax dañoo yaakaar ni bu yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam paree ci lii am na alal ju leen di remboursé ci seen xëy yi ñu ñàkk xëy ndax fitna ya yonent bi amu ko ba di ko def sallallahu alayhi wa sallam waaye loolu lépp rek teew ñi koy topp di ko gën a topp rek waaw ñii li leen indi lan la li ma xaalata fi xulubihim min xaalifil iman xol yee ci boppam ba yonent bi waxee dañoo déglu te borom xel bu dégloo dana xam luy dëgg ñu dul dëgg moo tax jinne yi ni wa anna lamma sami'na al-huda ñun jinne yi da bañ déggee njub gi amanna bihi ca saasa lañ gëm ndax du ñuy def xam nañ moo tax fa man yu'min bi rabbihi fala yaxaafu baxsan wala raxaqan moo tax ñu naan wa anna la nadri أسروا أعيدوا في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا لنا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق خلدا ñu ne إنا سمعنا قرآنا عجبا lu tax ngeen dëkk ci yoon wi ngeen nekkoon ñu ne ñun kat dañoo dégg lu ñu jommal sax te saaga rek amal naa bi ñu daal di gëm moo taxit wala nushrika bi rabbina ahadan loolu jinne yi ñoo koy xool ana doomu aadama yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi ñooñu ko doon topp ak alal dañ ko doon ñàkk xabaar dañ ko doon séndal ci taal bilaal ñu koy jiri te naaj wu tàng wa nga xam ne daanaka moo teg la ci tàllayam ndax xam ngeen ni tàngoor ci xeer la gën a saree bu tegee ci kaw suuf ah am na ñoo xam ne ca lañ faatoo ay junni junni saxaabaa ngi ni mbokk yi yoo xam ni ñenn ñi siiwuñu ñenn ñi daanaka kenn xamu leen lu ko waral mooy ca ati bekkoor ya ambar doo nañ leen ñetti at dem nañ ba nit ci bu demee war a sax la ñuy génn moom jur ga ñooy mbokk yam ndax xobi garab la doon lekk waaye ba léegi rek taxut ñuy dellu keroog ba yonente bi saa sallam siñeenteeg yéefar yi lañ siñeente ba nag ci sulxul xudaybiya ñu ne yéefar bu ñëwati rek dañ koy delloo abu musa ni sa lëx yetti bi mu yettee kanam gaa ngi tuuru ak deret Urwat ibn Mas'ud ni ko déet fii kay moom dama koy delloo abu musa ne di yuutu jullit ñi naa leen kaay leen dimbale ma suñu ma delloo damay te bëgguma nekk yéefar keroog la saxaaba yi mer ba yonente bi digle toppuñu ko lu tax ndax bëgg dimbali seen boppam jëli waaye pour wan la yonent bi ku doon sàmm ay kàddoom la moo ko wax ba nag moo ko séedee rek mu ne bismillah nga dem abu musayib ñu seene ko ay seen jéng ko ànd ak moom di ko taw ay yeer dem ca àll ba mu ne yonent bi kaay dimbali ma yonent bi njëriñ waxoon naa ko ba noppi jullit ñi kenn sañ ca jub wax ca ndax yonent bi wax na ba noppi jàpp naa ne mbokk yi lii bu dul woon ak ngëm kooka dana génn ci lislaam waaye ba mu demee ba ci yoon def nay fexeem waa ji mu àndal mu daal di def am pexe comme jullit day muus ndax boo yeewul dañ lay mu daal ñu waa ji commencé teel la waxtaan ci yoon yi teel la waxtaan ba waxtaan yu xumb mu ne waa ji yéen di ngeen xumb fu ngeen di jëlee jaas yéen yéen jaas yi kéemaan la de man dafa kaw jaas yi xam naa ne su ma ko xamoon dinaa ci jéem a wuti bu fekk waxtaan ba waxtaan yu xumb ba waa ji fàtte ne kii saaf noonu la mu ne ko ba xool kii jaas moom doy na waar di waa ji ko dund daal yëkkati jaas jox ko mu sax baat ba ba feree ba rek la daal di tekki jéng yi rek dawaat ñëw li mu xam ne bu ñëwee ci yéen bi danañ ko delloowaat mu dem sa àll ba def benn xaymaam campé def ab benn annonce ni bépp jullit boo xam ni boo dawee dem ci yonent bi da lay leerloo te bëggoo ñàkk sa ngëm ñëwal fekk si ma man Abu Bakar mbooloo ma commencé bari ci mbooloo may bari ci mbooloo may bari ci ñu dem ba mbooloo mi am doole mu commencé léegi comme léegi suñuy noonu ñoo ñu doon fitnaal léegi caravane bu rob ñu agressé leen am nañ ci sañ-sañ parce que dañu leen doon sol dañuy fay yàlla mu ne udina alladina yuqatiluna annahum zulimu dañ la doon tooñ léegi wa inda allaha ala nasrin la qadir mooy fayu jot na ba ga yi demee ba ma marchandise yi commencé tagatémbe ci àll bi caravane yi gars yi dee ci àll bi ñu xam ni dara war a lutulul Abu Musayir ñoom yéefari ñoo ñëwaat ci yéen bi sallam ni ko accord yee nañ ko diis ndax fi ne ñu ngi bëgg a sonn loolaa may Abu Musayir jàmm kon mbokk yi loolu la ko waral moom mooy am gëm-gëm yettil yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ndax bëgg nga yonente bi sallam ah, ñu rey ko wala musiba dal ci mu ni wallahi fam nekk li ma dox bëgguma sax ak dëkk jam ca tànkam mbaa lu nar a ñëw na dal ci sama kaw xam ngeen ne Abu Talha gis ngeen ko nam meloon ah Talhatu bnu Ubaydillah gis ngeen nam meloon ke ab bëñam moo fàq ah muy Abu Ubayd Abu Ubayda borom xam-xam yi dañuy wax ni ki gën a rafet aw jaal ci àddina mooy Abu Ubayda ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo doon am benn xeet bu ko tàbbi ci pooj ba gaa yi xëcc ko xëcc mënta dañ Abu Ubayda nee na man nang ko sama gémmiñ rek xëcc rek bañ ñu sell tam borom xam-xam yi ku mel ne Ibn Kathir mi ngi wax ci siira nee na l'islam ci li ñu xam ci àddina bi kii bi gën a rafet jaal mooy Abu Ubayda dafa mel ni génn bañ ba ngir sama yonente bi saa daf koo yokk ab taar maanaam daf mel ni sax bu fekkoon loolu dindiwu ko fas daa war a dindi bañ ba ndax mu gën a taaru sallallahu alayka ya rasulallah beneen bi ci des mooy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jigéen ñi doon fitnaan nga gis jigéen joo xam ne ñàkk na baayam ci xare ñàkk na yaayam ci xare ñàkk na jëkkëram ñàkk ndajaayam bañ ko waxee yooyu yëpp mu ne man li ngeen may wax laa laajut li may laaj mooy ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi jàmm wala dee ñu ne ko waaw moom de gaañu gaañu bu ndaw rek la am ci tànk bi mu ne kullul masaibi tahulu baadaka ya rasulallah musiba ci watt sama kaw rek oyof na toll bu fekkee yonent bi bokku si xoola jëkkër ni mu fooree xoola bàyyi ni mu fooree xoola ndajaay ni mu fooree yooyu yëpp ci benn xare ba la ko ñàkk loolu li mu lay wan mooy comme ñooñu topp yan saxam lan lan ko toppee ndax moom dafa ñëwoon di fexal nit ñi suukar wala muy théoriser xel yi ba tax ñu gëm ko déedéet dafa woote rek wane ci njub suñu borom ne wa man ahsanu diinan mimman aslama wajhahu lillah ñooñu ñoo gën a rafet aw yoon ndax dañoo xool ba xam ne lii njub la ñu topp ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ànd ak loolu yonente bi ma nga cee am ay saaga mu di ko muñ ña ngi koy wax ay wax yu bon ma ngi koy muñ ña ngi koy fitnaal muñ fekk nañ ko muy julli ñu jël ay euh, nebare yi gileem ak bu ci yaag ila axiri sotti ko ca kaw muñ muñ ah bu nekk def nañ ko dem ba di ko waaj a rey mu xam ne dañ koy rey tey suñu borom yi ko génnal nga gàddaay waaye loolu lépp taxul mu fayantoo ta wallahi kéemaan suñu borom nga mooy keroog ba mu leen jekkoo nga xam ne dellu si na ci fat makka nga xam ne mënoon naa fayu ne leen maa tazunnuuna annii faa'ilun bikum pour wane du fayantoo lan ngeen yaakaar ne loolu laa leen di def tey mi ngi mel ni benn waay boo daf laa def musiba joo xam ne ñëpp ñu ngi ne ko gis nga ray ko nga ne wëlbat ci koñ rek dajeeg moom ni ko ras ah koñe tee jàpp naa ni kooku li ñëpp ñu xalaat rek mooy dóor bal mu dee wala jam ko mu dee waaye mu ne ko yow loo yaakaar la may def ci yow demal baal naa la idhabu fa antum xulafa dem leen baal naa leen moo tax ba suuratu yusuf wàccee yusuf alayhi salaam mbokkam ya ni baal baal ñu Yuusuf baal leen loola day méngoo lool ak la yonente bi defoon sallallahu alayhi wa sallam baal ay mbokkam te fekk jekku na lool am na doole lool sallallahu alayhi wa sallam loolu boo bi judd ci ñeent ko bi ñu ko ko moyee daanaka 23 wa sallam fexe wa magharibiha alquran wasaaroo fi nit ñi di jaamu seen borom mu mel ne daal benn puissance boo xam dafa jékki-jékki rek ne li ñax buy sax kenn xam fu mu jaar muy génn loolu la ko waree mooy borom bi subhanahu wa taala moo ko dooleel waaye tamit day wane dëggu risaalaam ak li nga xamante ni moom mooy wane ne affaire nu bu wala ànd ak loolu ndax moom Abu la ko Najaasi laajoon ndax yéen itam dana wuute ak am na ay maamam yu doon woote nguur Abu Sufyaan yi déedéet mu ne comme ceeb yéen la ñu ne ko lu tax mu ne léeg-léeg nit nga xam ni nguur ga ñàkkoon na ko jamonoy maamam mu ko jéem a wutaat waaye ku mut amuk nguur yenn si di ko ñeme yenn si saa sax ndax mos naa wax lu amul mu ne déedéet mu ne ah moom kat wax dëgg yàlla ab yeneen du wax lu amul. ñen ñoo koy topp ci nit ñi ñu am ñi jigéen ñi mu ko ñu ñàkk ñi ñu ëpp luñ koy topp ak gone jigéen ñi mu wa kadalika al anbiyaau min qabl yenn bu yàlla ma ko yónni rek illa qaala mutrafuha gis ngeen ko ca suratu zuxruf ya féetéerlu ya saay saay ya borom doole ya da leen inna bima ursiltum bihi kaafiruun ah yi leen yàlla yónni ngeen di naan ñu ne gëmuñu ko inna bima amantum bihi kaafiruun li ngeen gëm ñu ne waaw ñu ne ñun weddi ko non yàllaa la yónni ñu ne waaw ñu ne neen yàlla weddi nañ ñu nga yónni loolu loolu la gaa yi waxoon noonu yàlla moo la yónni mu ne waaw ñu ne ko neel yàlla ba mu déet nga ne ko mu ne ko weddi nañ li li la yónni jullit ñi yàlla ngeen gëm ñu ne waaw ñu ne nee nañ yàlla moom mi ngeen gëm ñun gëmuñu ko waaye loolu lépp rek yaa yaakaar naa laabir gi nekk ci suñu borom ak yéen a njub gi dina ci yonente saa sallam loola ca jàngale suñu borom la bokk ndax moo taxit lii lépp ñu di ko wax rek muy wàcce li nga xam mooy ndimbalam ak jubam amul benn ndigle bu yonente bi mës a digle nga dégg ni waru ko war a digle ndax lii baaxul amul wallahi eh, ibni taymiya rahimahullah dafa am téere bu taalif def ko dar eh, dar taarud al aqli wa naql maanaam ndax bu ñuy dàq ni facture leer yi li wala bi naan montre yu baax yëpp ñoo bokk heure facture leer ak xëy yu sell yi toujours ñooy bokk di di mukk ah mu ne al aqlu saxiix yuwaafiqu naqla saxiix xel mu set mu saa boo ko gisee rek bu tegtal bu wér ñëwee rek bu ko gisee da ci daal di ànd mbokk yonent bi sallam nii la continuer di woote di daawa jiite adduna soldaar soo xam ni adduna bi yëpp ñoo fi man te amuñ sax sëñ yu ñuy sol seen xupp yi di yàqu ñuy def daafe seen jaas yi di commencé ñuy xoos léeg-léeg sax ab xare am junniy nit ñetti téeméeri nit ñoo ci am ay fas war ñi ci def dañuy dox nga xam ne bu ñuy séddal dañ naan lii kat cërëb boor fas la lii kat cërëb ko yor tànk la loolee lépp yéen ko la muy wane mooy kon lii kat mooy diine dëkk mbokk yi ndax yéen sa dara woote addina pour di jël addiya ngir gars yi di ko dajalee rek jékki-jékki ba mu yàgg benn waaye jëndal la ab 4x4 wala ab Mercedes daal la koy jox déedéet wallahi mbokk yonent bi keroog bi mu faatoo ba ñuy waaj a jublu ci moom ci lañ gis ni ndekete waxuma la bàyyiwu fi dara waaye dafay bàyyi sax bor ko ah ñaar fukki àndaar ah wala fanweeri yoo xam ni bele la wala pepp la yonent bi ndeke lépp na ko pour waa këram dundee ko te jamono jooja ma ngay maye téeméeri gileem ci asaka ji wa alamu anna maa ghanimtum min shay'in fa inna lillahi xumusahu alal ji am na ci wàll waaye julli na fajar ba mu yàgg sëlmal ñu bëri tam ko xel yu génn saxaaba yi defee ne musiba am biñ ko laajee mu ne daa am wecc du fanaan sama poos ah ma doon siit suñu borom xisaab ma ci loolu moom laa doon gaaw dem jëli ko joxe di ko gaaw kooku daawul denc dara sallallahu alayhi wa sallam léeg-léeg Omar mere ko di ko yedd ci lan nit day ñëw fekk yonent bi amut lu mu sóor këram mu ne ko may awma lu ma sama sóor sama kër au lieu que yonent bi ni ko awma demal danaa ko toogal xaar lu fi njëkk ñëw ci xéewal rek fii naaj wi ma jox la ko ba Omar daan ko yedd ci loolu naa ko lii ngay def yàlla tegula ko foofa la ak laabiir yam sallallahu alayhi wa sallam diineem féete kaw diine yëpp amul njàngale bu rafet booy fekk ci beneen diine lu fekk nga ko gën a rafet ci lislaam amul benn diital bu amoon ci xeet yi njëkk yi lu suñu borom na ko xeet wi amul benn yonent bu jiitu même ñi ko topp bu ñu ñàkkee respect suñu yonent mbokk yi ñun amul sañ-sañu rek ñàkk respecté tey gis nga benn waay bu taxawoon fii mu saaga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam saaga Isa du ko faj de boo ko defee islam bu dikkee ci sa kaw lay dal amana rasul ma unzila ilayhi min rabbi mu ne wal muminuuna kullun aman beneen bi mu ne laa nufarriqu bayna ahadin min rusuli ah kon ab julit lan lan moo tax mu gëm yonent yooyu parce que daf koo dégg ci yonent bi alayhi salatu wasalaam yonent bi wax ni ñoom ñëpp lañ war a gëm ñoom lañ war a ormaan ñoom lañ war a fonk ci wàllu jëflante sallallahu alayhi wa sallam lum la mas a wax dana ko def lu mu la mës a dig dana la ko jox bañ ne ko ba dafa tere nit di digg lu mu lu mu lu mu defut di wax lu mu narul léeg-léeg nag doomu aadama du lu mu wax mu man ko moo tax kilifa ga ba ko waaje ne yow kat maa ngi lay sant maa ngi lay gërëm ndax yow moom loo wax di nga ko def mu ne déedéet loo wax def ko yàllaa ko man waaye lu ma wax nar naa ko def kon ab jullit day fas ni lu mu wax nar na lépp lu mu xamul du ko wax lu ko wóorul du ko seede su joxee rendez-vous da koy fonk ko dénkee da koy wóor su amee ku ko tooñ bu ko mënee baal na ko baal su ko mënta baal na fayu fayu ko rafet saa bu déggee kuy wax lu ñaaw ci lislaam suñu borom ne idfa billati hiya ahsan jëflantee leen moom jëflante bu rafet bala ngaa yegg ci ñoom waxtalu ngëm yàlla sëlman xataat nit bu la bàyyee da nga koy jox ah wa ahsin ila man ataa ilayk nit bu la defee lu bon pour nga xam nga nag sa bopp xam ni yow baax nga da ngay fexe def ko lu baax benn borom xam-xam nee na nit nga jékki-jékki defal ko teraanga nee na loolu du ndam lay ndam mooy nit nga defal ko teraanga fekk moom lu bon la la defal mu ni foofa nag mooy aalal xim mooy njomb xel ga kon mbokk yi tënk dund yéen sa salam ci gàttaay bi du yomb waaye ñu xam ni kii mooy yonente bi sallallahu wa sallam wallahi keroog bi mu faatoo mbokk yi am na ci ay saxaaba ñoo xam ne tiit wa leen topp feebar la leen ba ñu dee ñoom te aw bakar ca la bokk ndax la àppab suñu borom ñëw na waaye tiitoo wettalikoo yonente bi jàpp na aw bakar bu guddul fan ginnaaw yonente sa salam loolu bari na ci saxaaba ya bari waa na ku doon wax sax man sama bët yi kat bu dee naroon sama jee gis yent bi seen ma xam ko gënal loolu la muy wane mooy ak bëgg nga fa ak fonk ma nga fa ak wóolu ma nga ca saa boo matee dégg nag lu bon jëm ci yent sa salam dindi ko ci sa te nga ñaan ca ñett yi boo ci amut benn yëgal ne yow yaay gëm-gëmul waaye bokkoo ci ñu gëm rabbana atina min ladunka rahma wa hayyir lana min amrina rashada rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka almasir ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك وحب نبيك وأصحاب نبيك اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم أمر قلوبنا بالإيمان واليقين والتقوى وعمر أعمالنا بالإخلاص والمتابعة إنا نسألك الهدى والتقى والعفو والغنى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد